ndax bu yëngu rek nga làmb ko kon portable yi nag portable yi nag bu sonee ñëpp génn ci julli nga làmb nga nekk fa nag di làmbatu portable ba pour fay ko ci loo nekk yow ci kanamu kan nga ne mooy dugg sa kër sëriñ fay portable bi lépp nga téye sax sax doo ko def allahu akbar waaye booy julli moom yaa nga ca fi tasabaak ak kenn xamul rek te kat kii kii tëdd julli lañu koy jëkk a laaj ci biir allahu akbar nee moo tax suñu maam sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bu ngeen demee ca téeréem bu mag ba ñuy wax tasawudu sixaar dafa wax ni képp ku faat benn waxtu ba faatu julli woo ko bu la yóbbu ca jàkk ja bu la fa jullee bu la fa sange bu la ko dee suulit bu la suul ci sëgi julli gi nan yóbbu ca àll ba te lay sa yuqbalu du jublu penku day wan ginnaaw penku dellu leen ci téere yi waaw ko ba nee na dellu leen ci téere yi góor gu sell a ngi